nuyoo bu baax a baax mm. euh, euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne euh, moom mooy Kër Massar déjà est-ce que tey li nga xam ne moom la ñu jël ne dogal départementalisation est-ce que waruñu woon xool bu baax aménagement bi nga xam ne moo nekk ci douane bi balaa ñuy jël boobu décision di ko départementaliser puisque bokk na ci localité yi nga xam ne ñoom la mbënn mi gën a sonal tey dëgg la vraiment question bi am na pertinence trop et puis ça vient à l'heure ci bi mu ñëwee li ngeen ko wax xam nga dafa am loo xam ne dafa am solo trop euh, ci politique publique yi loo xam ne ñun dañ koy réere mbir te dafa am solo gis nga nekkul ay euh, wut ay euh, politique yoo xam ne ay de ay administration territoriale mooy régler suñu ay problème dafa am yoo xam ne monsieur Anne wax na ko léegi te ñun il faut ñu bàcce xoj ñu solo trop moom mooy déjà politique d'aménagement du territoire ndaxte aménagement du territoire mooy li nga xam ne mooy jox Euh, boo amee territoire bi ni nga koy découper li nekk ay zone d'activité yi nekk ay zone d'habitation yii nekk ay zone aussi de culture ndaxte noonu la euh, territoire du bindoo dina am la foo xam ne dëkkuwaay la am na foo xam ne pour ay bay la lu nit di dundee am na loo xam ne pour fi di liggéey ay activité mais bu fekkente ne dañuy jël euh, li nga xam ne la waroon fi nekk dëkkuwaay ñu yóbbu fa ay activité fi waroon nekk ay activité ñu yóbbu fa dëkkuwaay mais surtout li nga xam ne moom la ñu gis ci biir Ndakaaru moom mooy dañuy jël yoo xam ne ay zone de culture la woon ay zone naturelle ñu def ko léegi mu nekk ay zone dëkkuwaay automatiquement dañuy fausser suñu euh, euh, planification te loolu euh, ni ko sama xarit bi waxee du rek ci politique d'aménagement du territoire mais politique d'urbanisme tamit daf ci bokk te am na ci yeneen yoo xam ne boo dëggee ñu ngi wax plan directeur d'assainissement PDA bi tamit nekk na si yoo xam ne parce fi ñun du ñu yaakaar ne plan directeur d'assainissement wala daal mooy ay drainer ndox wala moom mooy nga wut ay canalisation loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy jeexal wala mooy régler problème mu inondation yi déedéet li nga xam ne mooy li ci ëpp solo respecter la vocation bi ñu war a jox à chaque zone fii zone d'habitation la ñu aménager ko fii zone d'habitation fii zone d'activité la ñu def ko zone d'activité lii nekk na ay zone yoo xam ne zone de culture la ay zone naturel la ñu kii ko mais fu mu nekk nii Ndakaaru cinq cent cinquante kilomètres carrés la loolu mooy la superficie totale de la région. Mm. donc zéro virgule pour cent de de la superficie totale du pays. xoolal loolu ni mu tutee sachant que aussi l' espace est rétort maanaam mënoo jël euh, di yokk espace bi nu mu la neexee. donc ñun euh, bu ñuy def suñu ay politique euh, publique balaa ngay jëm di wax ay décentralisation ay départementalisation loolu. du ay solution loolu ay fausse solution la li nga xam ne moom mooy li ëpp solo li population yu bëgg moom mooy lan nga jox politique yoo xamante ne euh, de planification yoo xam ne yu am solo la fexe ba nit ñi balaa ñuy dem dëkk ci fenn ñu fekk mu am li nga xam ne moom mooy jumtuwaay yi fa fekk mu am ay mbedd maanaam ay VRD maanaam réservoir divers foo xamante ne yoonu ndox la ñu ne lii yoonu ndox la canal ji ko loo xam ne pour ay égout la ñu wax noonu xoolal actuellement Ndakaaru mënatuñu euh, puiser léegi ki suñu nappe pourquoi parce que toute la nappe phréatique est polluée par les méthanes mmh. lu tax loolu c'est parce que lu tax ay fosse moo doon am bu njëkk ba ñu dem ba ci biir léegi ñu ne léegi am na ay égout yoo xam ne war nañ ci mën a jaar dafa ay zone yoo xam ne moom mooy nekk bokk na ci li nga xamante ne mooy acte trois de la décentralisation bi ngay wax puisque tenir nañ ci ko en compte muy un plan d'aménagement d'assainissement de mhm. territorialisation donc fan la mbir yi bloqué ba tax euh, quand même ñuy mhm. dund euh, ce problème depuis des inondations mais problème yi euh, dafa nekk yoo xam ne am na ci yoo xam ne nekkul rek décentralisation moom moo koy réglé parce que boo xoolee bu ñu lay wax sax décentralisation acte trois de la mais dañ koy faral di wax mais man duma ci ànd ñoom ci lu bëri boo waxee ñu ne la assainissement bokkul ci compétence transférée loolu la ñuy wax chaque fois. Mm-hmm. mais man quand je fais une lecture in fine des neuf compétence transférées o collectivités territoriales da nga ciy boole aménagement du territoire da nga ciy boole urbanisme habitat et quand on considère que euh, l'habitat c'est vraiment la maison et son entourage mm-hmm. donc euh, kan mooy wax léegi dëkkuwaay Euh, te doo ci boole assainissement. donc yooyu il faut faire une lecture in fine vraiment du du comment des textes. maanaam loolu au niveau des collectivités territoriales mais aussi au niveau de l' état. donc yooyu nekk na ci yoo xam ne am na ci solo beneen bi tamit sooy xool bu ñu la wax ne ñu la ci compétence suñu transféré am na boo xam ne mi ngi tudd planification. comment on peut parler aussi de euh, planification sans prendre en compte euh, la vocation des zones. on on parle aussi de gestion aussi de l'environnement et des ressources naturelles comment est-ce qu'on peut parler de la gestion de l'environnement et de ressources naturelles sans prendre en compte ces aspects mhm. donc pour wax na ne ci suñu politique yi am na ci yoo xam ne ci textes yi les textes sont bien faits mhm. mais li nga xam ne mooy poser problème mhm. c'est dans l'applicabilité c'est dans l'application te bëri na fi ay compétences yu bëri yoo xam ne jox nañ ko collectivités locales yi daleen leen ko joxe ci loxo ndeyjoor. nangoo ko ci loxo càmm. mais c'est quoi le problème c'est que dans dans ci wàllu application lan mooy problème bi lan moo koy tënk lu tax muy yéex te ñu xam ne urgence la war a mën a doon ci réew mu mel ni Sénégal ci dëkkin en tout cas euh, ville yi nga xamante ni bëri na ci ñu ngi ci Sénégal lan moo tax justement application yooyu di di di tardé wala muy wala muy bañ am en fait. c'est quoi problème. tradition tradition jacobine xam nga ñun dañoo donn ci France lu bari mm-hmm. am na ci dëkk yoo xam ne réew yoo xam ne boo xoolee anglophone yi ñoom ñoo ñu gën a xam même sax boo xoolee système colonisation bi. Mm-hmm. dañ lay wax direct rôle ak indirect rôle. Mm-hmm. système direct ak système indirect. mais ñun li ñu donn ci français yi dafa bëri lool lool te lu ci bëri baaxul. xam nga euh, bu ñu la waxee ne léegi ñun en tant que euh, euh, état. bu ñu ba ay texte ba pare. soo xoolee ay recul moo am. dañuy def par exemple 1996. Euh, politique de régionalisation. Mm. dañu waxoon dañuy jox sañ-sañ ak mën-mën yu bëri collectivité territoriales yi. mais boo xoolee euh, si on parle par exemple des compétences en matière domaniale. Mm. quelles sont les collectivité locale yi nga xam ne qui gèrent leur domaine. Mm. doo ko gis c' est l' état central qui continue. d' accord de mettre la main. sur euh, les domaines. des fois nag de temps à autre ñu jël dugal quelques politiciens ci biir quelques maires. pour les compromettre pour les lacs ak li nga xamante ne moom mooy plan de décennal de lutte contre les inondations. Mhm. Euh, bi nga xamante ne euh, dugal nañu ci euh, lu lu jege 769 milliards la ñu wax mais les 511 milliards lañu ci dugalagum muy taux d'exécution bu toll ci 66 virgule 5 pour cent yow naka nga ko gisee est-ce que doon na pexe tey ci li nga xamante ne moom mooy mbënd mi puisque li ci des bareetul te durée bi un an la pour ñu jeexal ce plan décennal de lutte contre les inondations. waaw xam nga mooy li ma wax fii euh, ay mbënd tax na ñu tas ay institution boo xoolee euh, lu mel ne Macky bu mu ñëw hmm. euh, mbënd la fi fekk tax na mu tas élection mu mu mu toxal ay élection mu créé aussi mu daal di dissoudre ay institution hmm. daal di jël alal ju bëri def ko ci biir hmm. waaye tey jii la wulee ñaay tey la gën a metti foo munti tourné da gis te te je vous dis chose xam nga benn at moom moo des ci plan décennal bi. Mhm. xoolal léegi euh, li nga xam ne moom am gis nga tawagul nag tawagul Ndakaaru mhm. tawagul vraiment ñun on le dit la mort dans l'âme mhm. mais on sait que yooyu. Ah, parce que aménagement ak ak li nga wax léegi muy muy muy assainissement dafa laaj ay moyens est-ce que loolu ñu wax noonu yëpp yow jàpp nga ne dugal nañu ko ci li nga xamante ne. mooy euh, euh, koppar gi ñu wax dugal nañu ko. ci ci xeex mën na mais madame loolu loolu wóor di nga ñun xoolal buñ nañu nañ nañu prouvé wax nañ ko du rek bind ay chiffres ni li ñuy wax noonu ñun ñëpp xam nañ ne xaalo wala xasiran dafuñu ko ci Mm. ah jël ne def nga xama sept xama cinq cent et quelques milliards mm-hmm. ci loo xamante ne tey jii la gën a jaxasoo mm-hmm. tey la gën a euh, la gën a mm-hmm. daaw bi ñuy def en cours ah monsieur monsieur Diop aussi qui est en cours mais mais mm, mais pareeguñu nañ leen wax ne <laughs> euh, mën nañ ne projet bi pare en en tout cas waaw loo xam ne projet boo xam ne fukki at la ñu ne juróom-ñeenti at yi dem nañ waaye xoolal daaw daaw juróom-ñetteelu at bi musuñoo dund inondation yu mel ni mm-hmm. ci biir euh, mim réew mm-hmm. musuñu ko dund ci euh, ci ci biir Ndakaaru mm-hmm. te xoolal ren ji taw bu tuuti la taw gum lii am moo tax man tiit naa pour bu bu tawee dëggantaan bu duggee taw. li muy am jafe rek ni moom euh, directeur euh, de l' aménagement urbain comme ni ko présenté. li tax mu gën fi teew sax mooy mbiru Dakar. nga xam ni projet de réflexion Sandaga bi juri na coow démb gis nañu ñaari partie yëpp def conférence de presse alors tey est-ce que dafa am enjeu ci may defar wala doo defar Sandaga. ah waaw Ndeye vraiment question bi am na solo trop. Hmm. Euh, te dinañ ci mën a développer bu baax a baax. Hmm. xam nga dafa am loo xam ne dëk dafay demee ci yoon euh, dëkk kenn du ko yore ci nu mu la neexee doo ko yor ci informel doo ko yor tamit ci par parloo xam nga dafa am loo xam ne dafa am maanaam bu bi ñu defee acte trois de la décentralisation léegi lu ñu def léegi ku nekk da nga am mais lu jiitu loolu dafa am loo xam ne il faut ñu bàyyi ci xel ndakaaru euh, comme commune moom moo jiitu Sénégal indépendant ndakaaru mi ngi nekk commune en 1887 mm-hmm. la nekk commune